monsieur le ministre Bamba Ndiaye euh, maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Fatou. am nañu mbégte dalal la ci matinalu réew mi fàttali ni yow nekkoon nga ministre bu ñu dénkoon wàllum euh, diine ci président Abdoulaye Wade. dalal ak jàmm monsieur le ministre kon ñu door euh, waxtaan wi ak euh, li nga xam ni moom mooy mbas mi dal ci Sénégal ak mesure yi président Macky Sall la jël ngir woyofal yenn yi mu jëloon ngir xeex jàngoro ji alors noo jàngatee wax ji nga xam ni moo waroon ci ubbi jàkka yeeg bërëbu jaamukaay yàlla notamment église yeeg euh, yu ci aju. waaw faatu dama lay delloo ci way bu Youssou Ndour way Youssou Ndour nag sant ko sunu maam yaa ko daan wax Youssou Ndour da ko reprendre rek moom xëy na boole kook ay musique moo tax mu siiwal ko muy womat mooy góor ga amoon na mbaamam ànd ak doomam mu ne ko dama lay jàngal àdduna góor gi war ci mbaam ñi mbaam mi romb ay nit nit ña coow ni góor gi moo soxar mi ngi war bàyyi xale bi mu ne ñu jub ñeneen mu ne xale bi waral moom mu wàcc bañ romboo ñooñu ñooñu ne xale bi moo soxar mi ngi war bàyyi góor gi mu ne ko dégg liñ wax nan jàll ban jàllee jub ñeneen nit ñoom ñaari ñu war ñu ne ñii ñoo bon ñaari nit ci mel ne mbaam kenn mënutoon a war keneen kiy dox mu ne ko dégg li ñu wax ba ca mujjeel ba ñeenteel ba mu ne ko nañ wàcc ñun ñaar ñëpp jiital mbaam mi ba ñu wàccee jiital korom bi nit ñu ne ñii ñooy dof ñoom mënuñoo kenn ki war sax bokk wala ñoom ñaar ñu mbaam mi waaye ñaari nit jiital am mbaam kese di dox ak seeni tànk mu ne ko doom lii mooy àddina loolu nag àddina boobu mooy Sénégal loo def ñu wax comme loo def ñu wax nag li ngay def seetal d'abord sa diggante ak sa borom ñaareel ba sa diggante ak sa conscience ñetteel bu ko amee seetal liy jëriñ peuple bi surtout bu la yàlla nattoo comme ni mu nattoo Macky Sall nga jiite le Sénégal moo tax ma yaakaar ne décision yi président jël wax dëgg yàlla annoncé ko bërki démb décision yu jaar yoon la ndax peuple boo leen di jiite da nga leen di déglu di déglu àdduna di natt di xool doo gëm rek di tañax tañaxi di dem te noonu la doxale ndax ku seetlu lu jiitu décision bi lu xew déggoon nga ñu ne ay Touba de te ñëpp xamoon nañ ko am na fa déjà ñuy julli waaye nag julliwul n'importe comment dañu ko organiser ca biir jàkka ja euh, dégg nga defe naa ne ñëpp dégg nañ bërki démb li xew lew nañu seen te kenn mënu leen ko reprocher ak jullit bu bañee julli ji dafa am lu mu yëg ci yaramam ah bi loolu lépp xewee président di déglu peuple mu ne mu dajale médecin yi ñoo ñooy experts yi ah man de duma médecin hmm. waaye feebar bi médecin yu bëri wax nañ ne fi nekk nii ñi ngi ci pic bi ndax gis nga mbir mi jolli na boo wër seetloo adduna bi yëpp li ñu wër France États-Unis itali Italie ñoo ñooñu gën a méttile foofu ci domaine boo ko jël waaye ñi ngay assouplir parce que nag mbir mi feebar bi ñaari boor la am am na wàllu wérgu yaram waaye am na itam wàllu koom-koom boo tëjee marché yi tëj barabu liggéeyukaay yi tëj nit ñi ci seeni kër mais ñu bare ngi bëgg a xiif loolu ku dëkk Sénégal war nga koo xam ku nekk sa mbokk wala koo musta xam sax bi ñu lay téléphoné naan la ñetti fan ngi nii taaluñu dara ci kër gi état bi sax dëgg la am na lu mu génne waaye ku nekk xam na ne loolu dajul peuple bi benn benn kon nag ma yaakaar ne bu ñu tollee fii président ànd ak i médecin yoo xam ne ñoom lay déglu ci lu ne te yàlla dafa wax ci alquran fasalu ahla zikri in kuntum la taalamun soo leen xamulee laaj leen ñi xam les experts les experts mooy ñoom professeur Seydi ñoom docteur Bousso ak ñeneen ñeneen ñooñu ñu ngi étudier situation bi au jour le jour ñoom ñooy faj malade yi ka taxaw fële di coow sol masque yi di coow ci rajo yi di coow feneen ñooñu mosuñoo gis sax ku am corona mosuñoo tiim malade. alors que koy tiim au quotidien jàng ko xam ko ne mën nañoo wàññee nii mais ngir yàlla nañ déglu ñooñu nañu déglu mbir mi def ko ba xam président li wax beneen bi mooy décision bi mu jël président décision bi forcé wul kenn ne dañuy tijj par force waxul ne bu bët setee ku tijjiwul sa jàkk yar la wala ku tijjiwul sa église yar dal daf ne tëjoon nañ ko de force maye nañ ubbi léegi nag communauté bu ne gox bu nekk jox na delloon na leen seen responsabilité pourtant journaux yu bari loolu lañ titré ñii dañoo tuddee xëy na ñuy bëggee a critiquer naan l' état se décharge mais ñenn ñi dañu ne l' état responsabilise les citoyens et je crois que le moment de le faire parce que man ca tàmbali ba wallahi lazim maa ngi fàttali sama kàddu premier kàddu ba ma waxoon dama ne lii guerre la boo xam ne kenn ku ne tu es individuellement et personnellement interpellé mbir mi yaa koy fajal sa bopp président du la ko fajal médecin sangam du la ko fajal ndax médecin yi wax na la ñu man ca tambali ba lañ ne feebar bi amul a garab États-Unis wax na ko France wax na ko Espagne wax na ko Italie wax na ko Sénégal répété ko amul garab pour la le moment donc la koy faj mooy moy moytu bi nag nit olof daf ne bakkan bu la ne mbasangee nee ko jiitul ma dem mhm. bakkan bu la ne mbasangee nee ko jiitul ma dem tëj nañ jàkka yi coow li bari na nañ tijji marché yi ñu ngi def nii nit ñi dañuy dee di président dig leen waaw nañ yombal waaye nag du ma ubbi rek bay loolu moo la doon nekk irresponsable hmm. présiden en homme responsable mu ne dinaa ubbi de mais damay ubbi de manière contrôlée et conditionnée ku respecté wut lii boo sàgganul mën nañoo tëjaat sa jàkk nit ña fay dugg dañ koy yamale mënees naa organiser dugg bi danañ continuer di raxasu kuy ñëw indil sa natte prière ainsi de suite ainsi de suite moom foofu laa naroon na ñëw ndax bu euh, église bi moom nee ñu ñoom ubbiwuñu ba ca kanam ak famille omarienne bi waaye li ñu bari ci loolu mooy tekki ne waaw loolu li muy tekki mhm. mooy décision président bi nit ñi dañoo gaawtu ba dégluwuñ sens bi mhm. sensu décision présidence bi ubbi leen obligatoirement. autorisation la. mooy autoriser nañ ñu ubbi. Mhm. l'église dañoo comprendre le message. d'accord ñu ne comme autorisation la du obligation. Mhm. ñun day étudier nañ suñ situation mënaguñu nañ dem ba man ko. Mhm. jaaraama waa église diñ def noonu la. la famille omarienne maa ngi ziare au passage sëñ Mountaga Car euh, euh, euh, Madani Mountaga bu baax mi. moom it ñu xool ne ñu nit day mënaguñu xam nañ suñu bopp xam nañu suñuy nit nan demani ba ca kanam da ngaa dégg ministre de l'intérieur da leen bi par force ko du ko wax parce que président obligé wul kenn mu ubbi daf ne maye nañ ñu ubbi waaye nag ci ay conditions. d'accord yaa ngi xool xam ne conditions ya dajeegul. Uh-huh. nga ne ubbi wu ma président ne la jërëjëf. Uh-huh. mais li yombul. yomb na léegi cinq prières yi amul problème waaye jullik ajuma bi tam am nañu mu jaaxal naka la ko mën a organiser. yaa ngi doon julli sànq solution benn amul problème jullik vendredi mi ngi nii. Hmm. bu jullik euh, korité mi ngi ñëw. waaye yooyu yëpp xam nga adduna bi lu bees amu fi loo fi gis defit la waxit la. Hmm. seen nga lii ñuy jéem ñun Sénégal naan mën nañ ko mënu Côte d'Ivoire a ngi koy def du ma la tuddal Arabie Saoudite du tudd Maroc du ma tudd Tunisie Côte d'Ivoire bërkaati boo Ndiaye seen comité de musulmans gannaaw discours Ouattara d'assouplissement daje nañ tëral ay conditions ajjuma ak lépp ci yem ajjuma mën ngaa yemale ñuy julli si ku nekk ajjuma sax nit ñi tàmmoon na loolu kuy ñëw da indi sa sajaada joxante loxo ci nuyoo bi amatul dandante bi dañ koy obligé loolu lépp mënees na koo def le vendredi mënees na koo def beneen bi seen nga dama lay wax leen Fatou xam naa li may wax xam nga ko. sénégalais kenn gënu koo bëgg bakkanam <laughs> olof daf ne borom bakkan bu la ne masangi nee ko jiitul ñu dem mm. seen nga mbas mii eh, eh, léeg-léeg nga dégg sax benn benn ñuy weddi waaye defe naa dañoo nekk ay réew du rek mais léegi benn sénégalais hésité ci ne mbas mi am na wala amul mm-hmm. ku nekk xam nga ne ab na te day rey mm-hmm. loola nag ab sénégalais bi ma xam mm. du jàkkaarloog moom di ca dugal bakkanam te tey ko nit ñi contrairement ak li ñu bëri foog danoon wane ne ils sont responsables dinoon wane ne xam nañ ñu ñuy aare seen bopp dinoon wane ne kenn gënu leen bëgg seen bakkan loolu nag mooy njariñ li feeñ ci discours ci ci mesure yi nga xam ne chef de l'État jël na d'accord ñu ñëw ci politique yi gis nañu bi président waxee ba noppi aussi euh, way politique yu bari ci kujje gi génn nañu euh, mu wuute xëy na ak euh, ci yoon wi ñu nekkoon muy yoonu àndandoo jàppale président Macky Sall ngir jariñ réew mi yow politique nga également bu weesoo casquette religieuse bi nan nga jàngatee situation bu bees bi. soxna Fatou xam nga politiciens yi moom ñoo weer seen bopp Ousmane Sonko ba muy wax daf ne. man de ba muy wuy chef de l'État yaakaaruma fa dara. waaye nag mu yokk ca ne jamono jooju ku wuy jiwutoon nit ñi daal ci sa kaw loolu faatu boo ko tekkee lu mu lay jox <laughs> mooy dem naa waaye gëmuma ko ragal coowal nit ñi dong nga ma tax a dem kon union sacrée ba ñuy wax amut ndax gaa ñi gëmuñu ko woon sama gaa yi gëmuñu woon loolu man nag comprendre naa leen politicien lañu wax dëgg yàlla te dañuy opposé wu tey feebar bi dafa bari ñum lor borom marché yaa ngi jooy boroom jàkka yi ñi ngi doon jooy waaye politiciens yi ñi ngi jooy ca suuf ndax politicien buy opposé wu nga tëj ko ñaari weer yu mun a tëj gémmiñam loolu métti na loolu métti na métti woowu nag moo tax bu président ubbee as fenêtre dañu caa saraxlu ak doole. gis nga ñoom ñëpp ba ñuy wax man def naa kenn xalaatul sax la nga wax da jóg rek wax <laughs> parce que dañoo sonn. mais ku seetlu en réalité xam ne li ñuy wax taxawul ndax politiciens yi dañoo yey seen bopp xam nga tey soxna Fatou bu nekkoon élection présidentielle bu fekkoon ne démb la wala tey mhm. ki gën a ñàkk ci ñoom dana jënd lu mat fukki woto yu bees di wër àll bi ak i nitam di jënd essence tous les jours di yore nit ñi waaw ñooñu ndax élection yooyu moo gën foor fort bakkani nit ñi bu fekkee ne mbas mu mel ni daa am lu tere loola ñu dencoon seen tuut soosa ñu dugg ci àll bi wër seeni militant bopp buñ ko defalul ñëpp it ñu defal ko seeni militant jëndal leen gel hydroalcoolique jox leen ay masque jàppale leen di leen sensibiliser da ngaa gis bu ko def ci àll bi amul donc politique gu toog ci rajo ak i télé di wax ne boobu sénégalais yi dañ cee sonn seen nga fàttu kum neex nga wax de waaye nañ dem ba ca kanam wax ji du jariñ dara parce que Sénégalais yi dofatuñu xam nañ ki leen di jariñ xam nañ ki leen bëgg a jariñoo politiciens yi nag la vérité dañoo bëgg a jariñoo Sénégalais yi. Hmm. waaye jariñuñ leen. Euh, ni ñu gérer mbas mi ci Sénégal itam jàpp nga ni aw na yoon bu weesoo coow leenu ci dëgg yëpp. foofu Fatou wax dëgg yàlla man waxuma waxu politicien de mais nañ seetlu ay chiffres Sénégal exemple la ci adduna bi. xam nga Donald Trump moo ëpp doole ma ci Sall bu dee réew yi ñu jiite waaye demoon na ba jaaxle ba ne détergent bi nañ ko piqûre nit ñi <laughs> Boris Johnson mooy jiite premier ministre du Grande-Bretagne mhm. mais dafa weddi woon mbas bi ba moom mu mujj feebar bërki démb la génn hôpital mhm. Bolsonaro Jair Bolsonaro fële ca Brésil dafa ne woon ab grippe la rek dañuy caaxaan tey deele na lu ëpp juróom benn junniy nit Macky Sall ca tàmbali ba la tàmbali jël mbir yi en responsable ne gaa yi ab guerre ngi nii l'ennemi est invisible noonu boo gisul lañu ñu war a xeexal kon nag defaru leen tekku di ko gérer au jour le jour suba gu jot ministère de la sante génn joxe chiffres yi tey faatu États-Unis dépassé na quatre-vingt-cinq mille ay fanweeri junni Espagne waxi noppi Italie waxi noppi Grande-Bretagne moomu Boris eh, mu tudd léegi Boris Johnson réewam dépassé na réewi Europe yëpp ci ay cas mais ñun tey ñu ngi toll ci vingt deux xaw ma vingt trois morts yàlla bum yokk ñi ngi toll ñi ngi door a egg ay deux mille cas xam nga loolu boo ko waxee adduna bi. ba mhm. damaa defee ne Sénégal yi léegi dañuy fàtte yàlla yàlla dafa wax ci alxuraan. wa amma bi ni'mati rabbika fa xaddis bàyyi leen jàmbat bi tey waxtaane li leen seen borom xéewale mhm. ñun yàlla def ñoo xéewal te xamul ko fi nit ñuy wàññee ay junniy junniy mort ñu nekk ci vingt deux ou vingt trois mort fi nit ñuy wàññee lu fukki junniy cas ñu nekk ci deux mille ak suñ réew mi ni mu bindoo Fatou dañoo war a sant yàlla hmm. dañoo war a gërëm Sall ba ñu gërëmee nag lu ko jiitu le corps médical hmm. ñi nga xam ne wax dégg yàlla def nañ sacrifice yu dul jeex wane nañ ci adduna bi seen xarañte tey boo ne médecin sénégalais la américain bi dana la déglu français bi dana la déglu espagnol bi dana la déglu waaye jaaraama Sénégal hmm. résultat performance bi ñu am néew na réew yu ko am ci adduna bi mais dama foog ne politicien ba ñuy génn dañoo waroon a féliciter d'abord le président Macky Sall de la bonne gestion bi mu def féliciter le corps médical féliciter aussi le peuple sénégalais parce que peuple sénégalais répondre na ñëpp dañu foogoon ne Sénégal boo ne dañuy tëj jàkk yi boo ne dañuy tëj marché yi daan fetalante daan def lii mais nit ñi dañoo yaru ànd ca bien que sax ban ba toqi tàmbali nañu di wañe ak bañ waaye ci tàmbali ba ñoom mm-hmm. ñëpp dañoo àndandoo ne bismillah nañu ko def comme day sooy bakkan baax na mm-hmm. faatu yàlla may nanu mm-hmm. léegi laa koy waxtaanee ak benn sëriñ ñun nag suñu problème mooy xamuñu li nu yàlla may waaye alhamdulilahi rabbil alamin dama koy wax ci sama tur mhm. di ko wax ci turu bépp sénégalais ndax tey fi ñu waroon a toll mooy ñun yëpp àndandoo gannaaw ba nu jégaloo suñu borom ne alhamdulilahi rabbil alamin sant jërëjëf ñun itam sant nañu la gërëm la monsieur le ministre Bamba Ndiaye amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinalu réew mi tey